sayidina wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ashaab alsamaha almashaayix walulama wa mumathili turuqi suufiya waljamciyaat alislaamiya wa qaadat almuridiya ziyaadata wasiiri daaxiliya mumathili raïs aljumhuriya wal ofdi almurafiq ashaab alsaada alsufara وعداء وعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسنغال أيها الإخوة المسلمون والمريدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيسعدني أن أوجه إليكم باسم سماحة الخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى وزاد من نصره وتمكينه هذه الكلمة fi ixtitaami faaliyat alixtifaali bilmagal li haasihi sana ihda wa arbain wa arbamia wa alf wa tatadammanu alkalima awalan shukran jazilan muwajjahan ilaykum ayuha alixwatu walahiba ala alxuduri almusharaf walmusharakati alijabiya fi haasa alxadas addini thaqafi alijtimaci sanawi كما نشكر كل الذين وقفوا وقفوا معنا من قريب أو بعيد وقدموا إلينا عونا معنويا أو ماديا مما ساعد في إنجاه الحرص على هذا الوجه الأحسن والأكمل فجزاكم الله خير الجزاء وجزاء الخير وثانيا تتضمن الكلمة تذكيرا بمغزى هذا الاحتفاء الذي نخلد به ذكر الغيبة البحرية لشيخنا أحمد القديم قدس الله روحه التي لاقى خلالها محنا جليلة نتجت عنها منه جميلة أوجبت على العبد الخديم مقابلة الإحسان بالإحسان من خلال أداء واجب الشكر لله تعالى على نعمة الابتلاء الضال ala al-ixtiyaari wal ishtifaa izaa araada llaahu bi abdihi xayran ibtalaahu fal xarisu tajziidun li waajibi shukri axadi maqaamaati l-yaqiin kamaa annahu tanfiizun li amri llaahi tacaala al-qaa'il washkuruu lii wa laa takfuruun. saalisan wa axiiran tatadammanu l-kalima tawjiihan lil-muridiin wa nasiihatun lil-muslimiin على ضرورة التقيد بتعاليم الإسلام وفق ما قرره الشيخ أحمد القديم رضي الله عنه في آخر كلمة له إلى الناس سماها أمين سره الشيخ محمد أمين جب أدغني بخطبة همسس قال فيها الشيخ رضي الله عنه عليكم بتوجيه نظركم وهممكم إلى المسألتين أن تعلموا ما أمرتم به وتفعلوا wa taalamu ma nahitum anhu wa tantahu wa shuddu aydiyakum ala haatayni almas'alatayni fa innahuma ulumu alawalina wal axirin yaani bil amali bi muqtadahuma sabaxa man sabaxa wa fadula man fadula min alawalina wal axirin summa qaala wajtahidu fi salawaati alxams والصدقة والدعاء ولأهمية هذه الوصية الحديمية الأخيرة fa inna cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullah yudakiru ljamic biha wa yaxusukum alayha fa fiha asbaabu shacaada wannajaati fi dunya wal axirati wa tatalaxasu fi amrayni ithnayni huma alcilmu naafic wal camalu saalix wala budda macahuma min aladabi almardi alladi yukshibuhuma alkamaal walqabuul فاحرصوا عليها تعطنوا وتنجوا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalal sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am lil muridiya ñu ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak ba mboolem naal yu rëy yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñ borom may ko kàttan ko gër mu yàgg fi ndax ndamu lislaam jëpp la sagu yoon muur yëpp la ñëpp a koy maase di ko ñaanal te xawaayam suñ borom bàyyi ko fi lu yàgg loolu tam ànd ak wér ñuy ci li ci ndigalam ak kàddoom ak xalaatam ci la ñuy dikkee ji leen jottali kàddu yi nga xam ne bàyyi ko ci moom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 li jiit ci kàddu yi rek moo di cant goo xam ne sëriñ bi nee bi mi leen koy sant yéen mboolem kilifa yi fi teewal këri diine yi dañu ñu bokkoo moom noonu li ak mboolem mbooloo yi wuy ci turu lislaam ñëpp délégation yi bàyyi ko ci biir réew mi ak yi bàyyi ko bitim réew ne yàlla suñu borom wax ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum te mooy xamanu nu julli yëpp ne julli mbokkam dëgg-dëgg mooy ki mu bokkal diine lislaam mi ngi seddal ñëpp ne dundal ngeen bokk googu seen digganteeg njabootu Sëriñ Tuubaa gi ci la kon yal yàlla fay gën ji ci bokk ak li nu boole ba seytaane bañ ci amu yoon ginnaaw loolu yéen délégation bi fi teewal njiital réew mi président Macky Sall ci njiital ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak mboolem ministère yi mu àndal ak mboolem délégation ak chef service yëpp yi fi teewal ak mboolem ñi fi teewal bànqaas yi fond bi sëriñ bi nee na leen di yóbbante ay cant ak i ngërëm ci président ci taxawaayam bu ma sëkk bu ma taxaw ci diggam ak moom digal ko it mboolem ay jërëm ñu taxawee ko ci màggal yi nee na mi koy ñaanal yàlla mu jàppale ko doole ko kattan ak man-man ba mu mën a àggale mboolem ay naalam ci réew waxaat dama bii ci guddi ne ma nee ko ak cant ak ngërëm képp laa ko amel ak xamal ko ne ko la ko waxoon na ko tàmbali damaa ñaan nee na fas na yéene ñaanal ko ba mboolem lim yéeri ci réew mi yàlla mottali ko di beral nuyoo ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne moom la président tegoon joxoon ndigal muy saytu ak a coordonné mboolem lu aju ci màggal gi sëriñ bi nga koy nuyu di ko sant di ko gërëm ak mboolem ñu seqoon liggéey bi ci seen taxawaay ci màggal gi. yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomatique yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu te leen sant ci seenu teewaay ak ci seen taxawaay. ci lépp luy sàmm ak rafetal diggante Sénégal ak seeni réew yi ngeen fi teewal yéen ñi fi teewal parti politique yi. yi newoon ci biir nguur gi ak ñi fi teewoon mboolem mbooloo yi taxaw askan wi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci seen jëf ci màggal gi ak seenu teewaay di nuyu mboolem mber ak média yi yëpp ci seen liggéey ci màggal gi. di sant di gërëm bu baax bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoo wuyu si ndigalu sëriñ Tuubaa li mu joxe woon ci bis bii ñu doon dundal mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu sant la ko ci yàlla ci xéewal yu rey yu bari yi koy dikkee te sababu woon ci tukki géej gi tàmbali woon ci bis bi doonoon nattu boo xam ne ay xéewal rek la jur ni min ni'matin fii tey niqma ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi dellu siwaat ak noonu ci kàddu yu fàttali ak soññe yi mu baaxoo yëkkati ci jataay bii jëmee ko ci ñu bokkal diine lislaam ak kàddu yoo xam ne mi ngi ko beral ñi mu seq réew mi lu jiitu muy yegsi ci li mu war a war a wax ak njabootu yoonu murit te mooy ñi mu sañ a digal sañ leen a tere sëriñ bi wax na ne mi ngi sàkku ci yéen njabootu lislaam gépp rawat na yéen ñi yàlla teg ci kanam mbooloo yi ñu ànd fedd la suñuy laxasaay yokk suñu yitte bu baax ci sàmm ak aar ndono li nga xam ne moom la fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi te kilifa yu baax yi doon wattu di ko sàmm ñu bàyyi xel bu baax ci mboolem li jug ngir xajamandoona loolu ak gàllankoor ko njabootu lislaam gi bëgg dund seen diine ak di ko dëgëral rawatina lu ñuy bind ak lu ñuy wax di ko jaarale ci média yi mu wax ne lii di soppeeku gu am tey ci doxinu jamono ak yàqu-yàqu yi mu àndale tax na ñu bari jàpp nañu ne waruñoo am kilifa moo tax nu wara a feddali suñuy laxasaay te jëmee suñu yitte ci jàngal ndaw ñi ak yar leen yarub diina boole ca dina leen taxawu sunu kem kattan ci lépp lu nu man yéen ndaw ñi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a farlu bu baax ci sàkku xam-xam ak melokaanu yu baax yi ab jullit war a yor te boole ca tàggat seen bopp bu baax ci jàmm yàlla ak liggéey ngir mën a am lu ngeen mën a sukkandikoo ba mën a sàmm seen ngor ak seen diine mi ngi leen di digal itam képp kuy seen kilifa ngeen warmaal ko te jox ko cër kilifteef yéen ñi mu bokk réew mi rek rawatina njabootu lislaam bi mi ngi nuy digal li ñuy yombal at ayush asim yi te loolu mooy nun ñi yàlla tànn réew mi nu bokk dëkk te nu war a nangu dogalub yàlla boobu ci ànd boole suñuy pexe ak sunu man-man jëme ko ci luy aar sunu réew yi di fa saxal jàmm aku dal di yokki naataange ak xéewali te loolu la ci jiitu ci lan koy may mooy la aju ci wàllu diine kenn ku rekk jàpp ca la ak la nga gëm te maadu ci pas-pas ak la keneen gëm yàlla wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko su ma soboon ma farsu mboolem nit ñi ma farsu mboolem nit ñi ñu gëm diine ji ma la jox muy lislaam kon bu leen jéem far farsu mukk walaw shaa ko la amana man fi l ardi kulluhum jamian afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin wax na itam ak jul yi ne leen ñereer ba jël ay rab ak doj def leen seeni yàlla yu ñuy jaamu sax bu leen jëme wax ju ñaaw ci ci loolee ñu gëm ndax bu ngeen ko defee ñu delloo ma ko jëme wax ju ñaaw ci man wala tasubbu lazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi xayri min waxaat na ak jullit yi ne ñi ngeen dëkkal te bokk leen diine waaye xatalu ñu leen bundu xataalu ñu leen terewuma leen ngeen di jëflante ak ñoom ci njëkk ak teraanga ak ngeen maandu ak doxal ak njub ci lu ngeen seq laa yanhaakumu llahu an allazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wa inna allaha yuhibbul muqsitin Seexul Xadim borom watu màgg bii nu fi dajale digal ne képp ku julib ne ko képp ku di julib ne ko waraa fii kulli xalqin xaqa man xalaqa te mooy nu sàmm ak yàlla ci mboole mbindeef ci di war maa ñëpp ak moytoo jëme su ñoom dara lu ñaaw njàngale lislaam njàngaleem lislaam mii nag Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne sunu maasee ànd jëfe ko dana nu dëkk dëkkeem rafet jàmm rek mooy dox suñu diggante sëriñ bi wax na ne yéen njabootu yoonu murit nag ginnaaw bu ngeen tàbbee ci mboolem kàddu yu fàttali jiitu yëpp mi ngi ñëw mi ngi ne ñëw ngir fàttali leen li ci jiitu mi ngi ñëw ngir ber leen seen waaru bopp ci biir fàttali ak soññe bi. nee na mi ngi dugal digal nu maase yeesalaat suñu pësteef ak suñuy laxasaay ci lépp luy aar ak a sàmm yoonu fii Serigne Touba Baye te jiitu ca loola mooy nuy moytu lépp lu mën a tilimal wala muy gàkkal derb yoon wi. foofu waaye mën a nekk te na farlu bu baax ci jàmm yàlla mi tax yàlla suñu borom bindu ma te nu góorgóorlu bu baax ci liggéey Sëriñ ci sunu doole ak sunuy alal ak sunuy xam ba lépp lu mu ba fàggal ko ba ñaan ko suñu borom ba may ko ñu ca fexe ba ñu gàttandu ko kon sëriñ bi nee na ci biir loolu nag mi ngi sant bu baax taalibe Sëriñ Tuubaa ci li xew bu yàggut ci mbiru Masaalikul Jinaan waaye loolu nag muy loo xam ne naka jëkk ñoo xam ne njàmbaaru muri yi foofu la nekk ndax ba Cheikhul Xadim di woote jumaa njaareem ja di ko liggéey pëstéef boobu lañ ci wane woon ginnaaw bu sëriñ bi ñibbi seetu waaye itam képp ku fi ko fi mas a nekkal tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou te xawaay boobu la amoon ci bi muy fondement jumaa ji ak bi muy indiraay bi ginnaawam itam Cheikh Mouhamadou Fadil taxawaay boobu la amoon ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad taxawaay boobu la amoon ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadir taxawaay boobu la am biñ demee ba bàyyi ko fii tam nag suñ boroom wane kiimaan bu gën a rey ndax bi Cheikh Mouhamadou Baara Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke accès ñu wane ñëpp ne mbirum Sëriñ Tuubaa mu ne kanam lay gën a jëm moo bi taxawaay boobu la am ginnaawam itam Cheikh Sidi Moukhtar taxawaay boobu la am li ci mujj mooy liggéeyu Masaalikul Jinaan bi loolee itam rek nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi lool la wanewaat ci liggéey bi muy bëgg a tàmbali muy université bi kon sëriñ bi ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa ni mu ko tàmbalee yàlla na sotti ci ay loxo ba ubbi ko kon sëriñ bi nee na mi ngi sent taalibe bi yëpp di leen gërëm bu baax a baax di yeesalaat nag ndigal li mu joxe woon ci daara Cheikhul Khadim jooju di ci sant kilifa yoon wi ci seen taxawaay ak jëf ju am solo ji nga xam ne jëf nañ ko ci liggéey bi kenn ku ci ne def ci yitte def ci poste def ci taxawaay ba jëf ci loo xam ne def na lam man def lu mënul waaye nag sëriñ bi nee na nañ xam ne liggéey moom li fi àggul rek ndigal lu lu di jeex te liggéey sëriñ Tuubaa du ñu wàcc mukk kon nag nee na mi ngi ci soññi taal bi yëpp ñëpp góorgóorlu waa ci xam ne kenn ku ci ne poste boo ci amoon daaw la nga yeesaat ko mi ngi sant taalibe yi dëkk ci dëkk bi ak mboolem taalibe yi taalibe yi dëkku ci dëkk bi ci tere yi nga xam ne yàlla suñ borom doo koo tere woon euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam andi ko Serigne Touba ñëw feddali ko moom mu ñëwaat ci jamono Cheikh Abdoul Ahad mu tere ko ci dëkk bi Cheikh Mamadou Mountakha ñëw yeesalaat ko mi ngi sant taalibe yi yëpp ndax yëg na ni ñëpp maase nañ ci xam ne seen njariñ la ñu jëfe ko kon mu ngi leen ñaar bu baax li suñu borom digal ci ku jëfe ndigal yàlla na tàbbi ci yow. kon nag mi ngi yeesalaat eh, tere yooyu ci waruma ji ñu war a jox dëkk bi nee na nag lu jëm ci kàddu yu ñaaw ak pexe yu njoonu yi nga xam ne ñu jublu Sëriñ Tuubaa ak yoona bi ñu ngi koy yëkkati saa ne di ko jëme ci kilifa yi ak ci jëm yoone ngir bëgg yee na sëriñ bi mi ngi nuy digal nu jëf ñuy jëflanteeg ak ñiy def loolu ci anam ga Sëriñ Tuubaa doon jëflanteeg ay noonam te loolu mooy bindu alxuraan bii di wala tastawi alxasanatu wala sayatu idfa billati hiya ahsan fa iza lisi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa su azin azim te moo di nit ki def la lu ban wala wax la lu ñaaw nga fayonte moom ci def ko wala wax ko lu ñaaw yëmbu la mukk nga bàyyi ko yàlla te bañ ko topp yàlla suñ boom moo tax mu wax ne idfa billati hiya ahsan te mooy ku la leb ku la lebal lu rafet waaye nag du lu yomb ndax ku yaatu ëpp dënnu doon ko mën a rek mooy am feex jooju jëfe ko moo tax suñu borom wax ne maa yulaqaaha illa lazina sabaru maa yulaqaaha illa zu hazzin aziim waaye ku ngeen gis mu mas a am cër bu rëy ci lislaam def ndig lool bokk na ci la ko may te li ciy firnde rek borom barab bu tëdd bii di Cheikh Al Khadim firnde la ci lool ndax ginnaaw bu mu bàyyi ko ci ci tukki ba. ci nattu yu réyam yooyu ba mu agsee rek dafa daal di jël xalifa wax ne afawtu an il aadai turan li wacciman nafahum li xayri sarmadan lastu adfahu dafa wax ne jéggal naa samay noonu yëpp ba ñoo jeexal na kon ñu leeral tuuti ci ne Serigne Touba yeesale tasawuf sunu sukkandikoo ci wax ak bindu bo bindu borom xam-xam yu dund ak Serigne bi ak ñi ko siyaare si ci jamono bàyyi ko ci mbooleem réewu arab yi daanu am lu wér ci ne. ñoom ñëpp ñoo bokk nu ñu gisee Serigne Touba ak wàccuwaayam ñëpp maase nañu wax ne liggéey bu rëy bi Serigne bi liggéey yàlla ak rasulullahi sallallahu ak doomu aadama yi ci toolu lislaam bokk na ci kiimaan yi gën a màgg ci taarixu lislaam am na boroom xam-xam bu màgg ci réew mista ñu di ko wax ak feyxu Mouhamad Khalid Thabit wax na ci téereem bi mu tuddee aqtaabul umma fil qarnil asin wax na ne ñi gën a màgg ci kàngami lislaam yi ci qarnul Serigne Touba bokk na ci ci diggante 1913 ak 1915 commandant cercle bi nekkoon Diourbel doon saytu ak contrôler mbirum Serigne bi ñu di ko wax Antoine Leslie moo daan xotti sàkkiti njëre bi ngir bett Serigne bi ba xam ci lu mu nekk dafa bind rapport wax ne jëmm ji ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba jëmm la joo xam ne mbootam kenn mënu koo xam te leer na ma yit ne yonente yi weesu ak awliya yi ñoom ñëpp jihaad nañ ci yoonu yàlla waaye biir na ma ne amuñu genn wàll doole ji yàlla jox Serigne Touba borom xam-xam ñoo doon dund dund ak Serigne Touba ci réew Mauritanie itam taalif nañ lu bari ci sëñ bi wax nañu ne mbiru Serigne tubaa kenn mënu koo xam ndax bu ko kenn mënoon xam ñun waa Mauritanie ñoo ko xam te mënuñ ko xam ayal wara fahmu ma li cheikhi min madadin law kaanu yufhamu maanaahu fahimnaahu awlaahu maa awlaahu min rutabin lillahi wallahi maa awlaahu mawlaahu ku ñu wax cheikh ku ñuy wax cheikh ahmadul xasani nee na li gis te man ko wax ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo di ne bamba jëmmula ji yéeme joo xam ne fa wilaaya awliya yu yeme yam la déparé xuus yoon wu kenn mësula jaar wutali boroom tonosub mboolem mbindeef yi yàlla teg na ko ci loxoom زمام الورى عصي لدى الله في يدي وما رمته من مالكي قاد بالأني فلو كان بهد الهاشمي محمدي نبي لقلت الشيخ أحمد خادما له سخر الله العوالم كلها على رحم أنف من قريب وأجنبي bi mu nekkee njaarim waa réewum iraq ak syrie ak makka ak madinatul munawwara ak tunis ak aljazair ñoom ñëpp ñëw nañ siyaare si Serigne Touba ak Maroc ne ko Cheikh Ahmadou nu Baba Chérif maa ngi maa ngi jéggalu kat ndax bi may dem dama fàtte suñu jàmbaar ja Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne li ñuy wax taq déewul mu taaxir la ndax Serigne Touba dafa wane ci xar baax dafa wax ne ci biir nooru daalen te ku ne xam na ne ak si dem woon maa maa salaami li yusaxihu al amal assaaliha allasi yukammilu al amal Serigne Touba dafa wane woon ne daanaka dafa wane woon ne ci Serigne Serigne Saliou mooy tëj sama mbir kon ku ñu wax ak Cheikh Mouhamadou Baba Chérif ni mu ko nettalee ci ay waxam dafa wax ne min achaami jaatu lufuud wa makkata wa min taybata jaat wa jaatu min misra wa jaatu min faas aljadidi wa arbihi wa min tanjata jaa wa min tuunus alxadra tara sukkana ترى سكان ترى سكان مكة والعميمة لأجل الشيخ تسكن بجانبه kon yi dara gënu ko wóor ci ay seere ku ñuy wax a Cheikh Mouhamad al yi dafa wax ne Serigne Touba li tax nasara génn ko réew mi ngir sànke ko moo di dafa gaaral mboolem awliya yi ak xutba waaye wàccuwaay wu màgg woo xam ne kenn mënu ko am lu loolu ñu teg ko nattu yi gën a tis ci mboolem nattu yi waaye kenn nungu ko tegoo ci ñoom ñëpp sëriñ Touba rek moo jug taxaw jaayante ak boroomam ngir tege ko natt yooyu nag yàlla da ko jaarale ci loxoy tubaab yi ngir ñu teg ko ko waaye dana dellu si ci réew ci réew mi ak maqaama yoo xam ne yàlla dana teg nosum mbindee fi ci loxoom loolu Cheikh Mahamadou Bachir indi na ko ci minal baaxal xadim moo tax Serigne daa wax ne tubaab yi bu seen yéene selloon mboole lu taalib yi am ci tuyaaba danañ ko am ndax mboolem lu Serigne Touba am rek ci seen loxo la jaar. lii borom xam-xam yi wax ci wàccuwaayam ak wàccuwaay wi ñu ko jox Serigne bi àdduna ci ci ay taalifam ci ay taalifam mu wax ne mbindeef mu yàlla sàkk mënu ko xam ku du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ko doon mi doon liggéeyal ak yàlla sunu borom mi ko sàkk ci moom def ko muy kiimaan ci kiimaan yi moom yàlla mi nga xam ne moo wax ne wa yaxluqu ma laa ta'lamuun loolu nag. bu ngeen déggee Serigne Touba di ko wax mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis qultu wa xasdi atahaddusun bi ma lii qaadahu wala yurini niqama mu dellu waxa ne yàlla sunu borom moo jël ci sañ-sañam def ko muy xar baax bu mu jëntal ci xar baax yi yonente bi sallallahu alayhi wa ngir mu liggéeyal ko mottali ci bindeef fi yërmaane ji taxoon yàlla suñu borom bind ko baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aya raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdullahi kulliyati mujisatun taaxarat wa xayru xayratin ladayka duxirat sëriñ Tuuba aw doxalinam rek ci xeex bakkan ndax bi mu dikkee daaw soobu yoonu ak tasawufu suluki te mooy tasawuf bi dëppoo ak jikko ak liggéey ak doxalin social jubli ci yeesalaat xam-xam tasawuf loolu moo tax li mu jëkk def moo di jub jubbantiwaat li ñenn nag ñoom doon doxe te mooy ñi tënku ci julli ak wor ak asaka ak aj màkka te bàyyi liggéey bàyyi jàng ak jàngale waaye Serigne Touba bi mu dikkee daa ci ci njàngaleem ngir nu xam ne arkaanul islaam yi bokkul ak islaam kene keno yenu tabax bi bokkul ak tabax bi ci boppam julli ak woor ak asaka ay keno la tabax bi mooy islaam mooy jëf ji ak kërkër ji ak ji lépp luy jagal àdduna bi dale ko ci ashhadu an laa ilaaha illallah ba ci xettali ab soccet woloru wala bàyyi ma mu mar naan listaan kon jëmb la ak comportement ak jikko er ak yërmaade irham uxayya jamiixal xalqi kullihim wansur ilayhim bi ayni lutfi wa shafaqa fa tarku kasbin liddia tawakkuli maa iltifaafin fi ulu xumrin anjali gis-gis bii nag moo war a Sëriñ Tuubaa yaatalaat doxaleen yu suufi yànke yi daa xeexe bakkan te ku ne xam na ne xeex bakkan te mooy jihaadu nafsi mooy fondement tasawuf ndax murit bi mënula am wusul fii xeexula bakkanam ba ko waaye méthode ba ñu daa xeexi bakkan lu jiitu sëriñ bi weesuutoon génn bu baax ci ci société bi ngir génn ko adduna bi ba dootu mën a gis bànneex waxuma daa di ko jëf mbaa mu koy dund sëriñ bi nag bi mu dikkee daa gis daa gis na yoon wi gën a dëppook alxuraan ak na ci xeex bakkan moo di nga sëf ko adduna ak i tiisam ak i coonaam su ko defee tàggat ko ci mu yanu ko yar ko ci muñ coono diisaay bi doo ko dawale coono yi waaye day jànkoonteeg adduna bi ba du tal bànneex huwa anshaakum min al ko wastamarakum fiha yàlla defa sant doomu aadama mu taxaw temm ci tabax adduna bi aar ko lu fi baax mu sàmm ko gën koo baaxal lu jagul mu jagal ko ba dara du yàqu te loolu mu loolu du mën a nekk lu dul liggéey moo tax sëriñ bi bi yàlla nammee mu feeñ ngir liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa bàyyi ba diine tumuranke lool jaaxle lool mu doo ko feeñal ndax sallallahu alayhi wa sallam bi muy door ci tumuranke la dooree bada al islaamu xariban wa shayudu xariban fa tuuba lil xuraba te day delluwaat ci tumuranke keefar yëkkati ko mbaax suufe seytaane jël tubaab yi roof leen ay pexem ngir yàq rekki gëm ni ko Serigne Touba waxee ci téeram bi ñuy wax ilhamu salaam fi zabbi an diini islam nga xam ne wane na fa bu baax fi adduna bi tolloon ci jamono yi muy feeñ ni yéefar yi yilife woon adduna bi ak ni ñu doon yàqe positif yi ak jikko yi ak ni ñu doon doxee diggante nit ñi ak seen borom mu wax ne wa baadu fal majuusu wa nasara saaroo li iblisa al xawi usara xata xada ka annahum sukara wa ra'yuhum fi xatfihim qad dara wa lil ana qaa'iduhum qad sara wa rafahum ila inxifaadin sara yasawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li xaribin ijabaari nee na jamono ji mu feeñe yéefar yi ak nasaraan la Iblis jël def leen jumtukaay yi muy xeex diine moo tax mu jël leen def leen ay prisonniers ñu mel ne ñu màndi mbaa ñu tàggoog seen sago seen xalaat yëpp jëmewu jëwu jëmewu ñu ko fudul ci lu leen di alak ak luy lor mbindeef yi iblis jël jël leen wommat leen jëme leen ci lu leen lor moo tax civilisation bi nga tabax bépp ci bu rek li mujj wa rafahum ilan xifaadin sara nee na foo leen fekk muy guddi muy bëccëg du ñu dox ci luy sabab mbirum yàlla seen dund gépp it dañu koy sànq ci luy mel luy mel luy merloo yàlla wala iyaasu billahi taala wa jarrahum iblisu lil isyaani wa li tajarruhi wa lil xusraani iblis jël leen di leen xëcc waxtu ne jëme leen ci mooy ak fettirlu ak alkane ak pertange tey ak ëllëg nendu àdduna bi bi mu àdduna bépp topp leen ci mooy yàlla ak jikko yu ñaaw yi ñu fi andi wa taawahum fi zina wa sarixa wa xeyri zeynin min fi alil fasaxa nee am ñu leen jàppe ay yàlla mbaa ñu leen wàcce wàccuwaayu malaayika yi wa minhum min min an raa nasrani yasibhu min malaika rahmani wa baadahum qad nasiya al jalila li xawfihim wa nasiya rasula nee na am na ci ñoo xam ne dañoo fër jël seen mbir yëpp jébbal tubaab yi fàtte yàlla sàggane jaamu yàlla wa minhum man xarrahu nasara bi wasfihi xatta al fuadu xaara wa yunsibu sun alasi ajrahu fihim ilahu alxalqi isdahaahu lahum wa yactaqidu anna alxawla wa quwatal fii fi'li lahum wa tuula léegi yii la seetaane jële tubaab di fawe ak a ni ko sëriñ bi waxe moo tax mu jël mbooleem pas-pas ak xalaat yi yàq yëpp di leen ko sol ngir jàllale ko ci nit ñi wa inna shayatina la yuuxuuna ilaa awliyaahim li yujaadilukum wa in ata'tumuuhum innakum la mushrikuun bokk na ci ngànnaayu seetaan yi gën a màgg yi mu doon yàq jamono li ñu liberté seetaane jël ko def ko ci xeli seeni falaasifa ak borom xam-xam ñu ci xalaat ak théorisé ba jël ko mu féete kaw diine yëpp ak pas-pas yëpp ba àgg ci bëgg jël nit def ko palaasu yàlla Serigne Touba bi mu ñëwee dafa jël mboolem xalaat yooyu yëpp dajje sànni ci àll delloo nañ ci dëgg dëgg nature doomu aadama te mooy doon jaamu yàlla bu ñu delloo ci mbind sëriñ bi danañ gis muy leeral dëgg dëgg liberté nee na wa xaqiqatul xurri man laa yaabudu dunia wala nafsa wala alhawa wala alayn fa huwa xiina isin sadruhu qubuuru alanwaari walxikmati wal asraar walbarakaati wa xuyuuri dunia wal axira fa man danna annahu abdun huna fa huwa fa hunaalika xurun maalik wa maalikun wa aakilun wa maalikun wa aakilun wa man zanna annahu xurun huna fa huwa hunaalika abdun wa mamluukun wa maakuurun nee na liberté dëgg-dëgg mooy fexe ba moom sa bopp nee na doon nangu leneen lu dul yàlla yilif la adduna du la moom bakkan du la moom bànneex du la moom saytaan du la moom nee ku faxee ba ñeenti yi lenn moom la ci kon man ngaa jàpp ne ca dëgg-dëgg am nga liberté nee na maqaama boobu ku fa àgg yàlla day jël sa xol duy koo ci leer ba mu fees def ca xikam ak i mbóot ak barke ak njëriñu àdduna ak laaxira sëriñ sëriñ Tuubaa teg ci ne ku gëm ne adduna bii danga fee war doon jaamu yàlla dañu la war a yilif boo ëllëgee da gore am sa liberté di def loola neex boo ëllëgee yëpp dis ko jël xabaar ko ci buum jàll sànni ko sawar mu lekk ko wala yaasu billahi taala sëriñ bi waxaan na ci mbindam leeral maanaam doon doon jaamu yàlla ak moom sa muy liberté nee na maa thamma illa abdaani abdun yaalamu annahu abdun wa abdun yadunnu annahu xurrun ila axirihi nee na ñaar ñi ñoo fi ne jaam bu xam boppam xam ne ak jaam rek la ak jaam bu bañ jàpp na daa am liberté mu ne ku jëkk ki nga xam ne daa xam boppam jàpp boppam jaamu yàlla bu bu nangoo tax mu nangoo jaamu boroom di defi ndigalam di bàyyi etreem yooyu muy taxoon mooy wuññi ay kiiraayam gi doxan diggante xolam ak àjjana ak ci melukaanam bu ko defee xetuk àjjana tàmbali koo xeeñ ak xéwalam te daru doxati diggante loolu ak xolam bu ko defee xolam day daal buur jëm ci ay cëramit sawar lool ci topp ko ci jàmm yàlla dootu tayyatu mukk ca noona lay sax ba dee ñëw fekk ko ci xaal boobaa nag la nit ki mën a jàpp ne boppam dëgg-dëgg ku libar sañ lu ko neex sañ ko neex sañ a fu ko neex ci àjjana mu ne ci des mooy ka jàpp ne moom boppam daa libar ba lu ko neex def kooku bu ko xetuk àjjana di ëpp sax du ko yëg ngir bàkkaar yi muy def ak bànneex yi muy topp ñooy rey xolam ba du ko yëg boo koy xemeem naka noonu bu ko tàngoor sawre di uppit du ci yëg dara ngir bànneex ak bakkaar yi mu nuur ñooy téye xolom du yëgate dara tàngoor ak xet yi ba di ko daw ci noonu lay nekke ba ba dee ñëw fekk ko muy nuur ci bàkkaar mu dekkee sawra ñëwee ko moomu jàmm ak alkane ñu sànni ko sawru mujj ko wala yaasu billahi taala loolu mooy li yàlla di wax ci wax yàlla di wax ci alxuraan ne innal abraar la fi naimin la fi jamin sëriñ bi nee na ñoo ñooy al abraar yi fi naimin wa innal fujjaar la fi jahimin nee na jaam yi nanguwul ak jaam ak jaam waxum yastarixoona fiiha moo tax sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël mbubbum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi mooy tanzilu ma sabata lil musaffai ax naa yamini an izan umid fai tolo mooy mbubbum ramm ak xettile moo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mbóot ak saafara yemën a saafara raggi jamonoom loolu moo tax bi mu ñëwee mënoon naa fetal jihaar jàmmarloog noonu yàlla yi waaye ngànnaaye sahir ku ko yëkkati loo fexe ba am ko ci booy wéer ngànnaaye lool dellu si moo tax Sëriñ Tuubaa ngànnaaye tarbiya ak defar ruu yi ak xel yi ak xol yi la jaar ba taxawal li mu taxawal taxaw ba taxawal li mu taxawal moo tax mu wax ne sama liggéey bi ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ca yàlla defal na ma yàlla fay fayal na ma boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayal na ma boppam moo tax li ma bëggoon lépp ma am ko faraxani kawni bila akdari fi haasihi daari wa tilka daari dayfal karimi wal jamili wal wadud rabbil wara wa bi yukarrimul judud nee na yàlla xamal na ma ne li des ci may dund ci àdduna ba àllaaxira gànnug yàlla laa laay doon yàlla nag li mu may terale mooy turamu yu mag yii di al karimu al jamilu al wadu rabbul wara te may defal ñëpp a ci xaj ba ca maam ya nee li ko yàlla fayee kenn du ci ëppale ay taalibeem yi aju ci moom moo tax mu wax ne allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammad wa ala wa sahbihi wa wajjih ila kulli man taallaqa bi barakaati qawlika wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum amin ya rabbal alamin yow yàlla sunu borom maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi di la nga defal mbooti ñi aju ci man barke ak mbooti laay jiidi wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum yàlla ëpp na foofu di ta seen yaakaar yow yàlla mi nga xam ne yaa mën a may lépp ixfir bi jaahil Moustapha lu kulli man ahabani li wacci maliki zaman nee maa ngi ñaan yàlla képp ku ma bëgg te yàlla tax yàlla jéggale say bakkaar naafiu bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaani bin nabi watlaqa nee na maa ngi ñaan yàlla képp ko ku ñëw fi man di yaakaar sutur na sutur àdduna àllaaxe yàlla may la àjjana ji gën a kawe ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay yantali bil mustafa al xuluba wali bukun tuwassilu matluba yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika al xasini wa chamla maa nee na yow yàlla maa ngi la ñaan sama taalibu yëpp nga boole leen làqal ma leen ci sa tatay yu say yi yàq mënula àgg maa ngi ñaan nga boole seen xol ba bu leen dara ma defee wala ma la jëmixum nu foosoom sa injet ru al masa yi ak balaa nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku aju ci man yàlla notol la sa bakkan defar la ko ba mu jag tegu ci yoon te dara luy lore bañ laa jege ixfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi sax tusaxsih maala nee maa ngi ñaan yàlla képp ku ma wutsi jëm ci man yàlla jéggale say bakkaar say loxo sax saxal ci ay xéewal ak alal julaw nafaatani fanfaa bi al iyaala yaa man xawal amir wal aqyaala nee na yow yàlla jëriñ nga maa ngi lay ñaan ni nga ma jëriñe nga jëriñu ko sama njaboot gi ak sama taalibe yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne yaa moom buur yi ak kàngam yi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wajhal qasidati haasihi xisnan xasinan lu kulli man taalaqa bi min annaasi ajmain kon ñu tëje ko fi ko Sëriñ Tuubaa tëje te mooy julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan xasida gi ñu ñu doon jàng mu doon tata ak kaaraange ci képp ku aju ci sëriñ bi ci àdduna ak laaxira kon mboolem ñu doon ñëw te seen bakkan des yoon itam tàbbi na ci biir